merde waaye xaw ma lan a xewati suñ dëkk bi nii bu fekkee connexion guddi connexion ba ci te wifi yi bokkuñ ci woon mais fexe nañ bu boole ko ci fu mu ne nii fi ma tolloon ni mu neexee booy kii léegi mu nangu booy ndax mu ngi may tàmbali yu ne affaire càkka booy xoolal booy bii léegi man affaire bay laa ko booy affaire boobu xëy pour mu xaw a sexy mais xool yàqal man man damay dem damay dem ba sama doxalin. waa Alaaji. waaw. yow problème connexion bi ñëw na ci yow. dal nii may doxaat benn xale bu jigéen mu yónnee ma kër après mu yónnee ko affaire boobu mu wiy génne làmmiñ affaire bi demul. man wifi bi mi ngi signalé de mais connexion bi moo ñëwul ngay wax ay waxu gel yaa ko tal. ah waaye tamit fii ku nekk sa soxla de waaw affaire bi kañ fi mu. alaaji yow code wifi bi ko changé sànq maa ngi bëgg ba connecté wu. léegi. yéen dañ leen wax man satellite laa ba ku nekk rek man maa la war a capter man lu tax yéen ngeen di ma respecté leen ma takkuma leen waaye seen kilifa laa de ah. xanaa nekkul li may xalaat la de non non loolu yàlla duñ doon ma looy xalaat yi. <laughs> Mama Lamine de sañ naa neexalee ay saakut wifi bi changé ko pour nakaral ma man mii. Mamadou Lamine. waaye loolu de bu ma Mama Lamine dootu ko defati. sa la nag yéen saf la wu leen dara jigéen day xajam. maa ngi fii connexion bi wifi bi Aïssa ubbil Mbarka Ndiaye Aïssa nuyu se eh, ah. li ngay wax kan moo la ko wax loo lu ci sayoon yoon maa doo góor nii nga mën a mel ndax boo nekkoon góor mat li nga doon wifi bi yow yaa koy téye sa téléphone di ko changé ni ko neexee ni mu la neexee tëm ñàkk jom bay bëgg a dee ah, Modou Lamine xanaa ñemewu la jël côté wifi bi di ko changé ndax Aïssa te ñun ñëpp ñu nekk ci kër gi ay jeeg con waaw léegi nag comme ay jeeg ngeen ay jeeg ngeen yéen fexe leen lijjanti nu ñu xëddee suñ biir am dara dañuy woor ñun dañoo war a allahuma la ko sumtu bientôt dimbali leen ñu ñu xëdd mais yéen đi rek zéro waxu wan na rek ngay wax te li nga doon lekk bu feeñ ci yow sax ñu ne waa yaa ngi woo ba kenn xamul looy duróo yow ndax dangaa woo yow yaa ngi mel ni keccaxu daaw géej Wow. Ừ. Nó đau màu quá. À? Cháu quýnh rồi đấy. kii mooy Serigne Modou Gaynde borom kéemaan ñaankatu yàlla bu mag bangook doomi kër Sambaraki Jóobeen la di fekki ay taalibeem fu nekk ci àdduna bi ñépp ko xam ci résultat ci wàllu ñaan Serigne Modou Gaynde borom kéemaan doomi kër Sambaraki Jóobeen bi ca diwaanu Saalum moo leen indil ay produits yu bees tax yu jëm ci wàllu ngóora lu xeetoog éjaculation précoce lu jëm ci wàllu jigéen bu taxaw wala boog jigéen bu mën mënagul am doom ak yeneen xeet yu ni mel Serigne Modou saafara gi mi ngi tudd xam ak Saalum gi ko gu yéeme ba àgg ci lool xam saalum gi doomi kër Samba Rakki bi moo leen ko indil ku ci yàlla dimbali nag ba nga jot ci sa aajo faju na ci saas yamul foofu de moo du Gaynde borom kéemaan doomi kër Samba Rakki Joobeen bi am na sangat woo xamante ne dafa jëm ci wàllu ubbeekaay moo xam nga bëgg bayree wala bokk nga yittewoo tukki mu dëgër lool nga déposé say kayit bëgg cee jot ci ni mu gën a gaawee bi daf la koy defal yow mi nekk bitim bëgg am carte séjour licence wala nga bëgg a british passport fenn rek laa lay yabal jokkool ak doomi Samba Rakki Joobeen bi saalum saalum bu mag bi ki nga xam ne bu coow li baree du moom waaye bu résultat yi baree moom la nee naa ko sëriñ bi Sénégal da laa yittewoo boo tukkee tee ngalawaay bu fa yàgg ah mbokk yi mbir maa ngook li nëbbu woon feeñal naa bu la dem bi yombee gaawal gaaw fekki ko ca jiwaanu saalum ca kër Samba Rakki bu la dem bi yombul nag mën ngaa jokkoo ak ci numéro yii ma bëgg a jox 77 972 80 98 81 wala nga woo ko ci 77 085 49 91 cey doomi kër Samba Rakki Joobeen bi cey Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan Kéemaan la daal dangay nelaw kaay wuy yaay bàyyi moom ma tëdd dimb su guddi nelaw ma ba bës dama fanaanee feebar ndax yaram buy metti waaw yow ani Mamadou Lamine xanaa fanaanu fi Mamadou Lamine tàggu na ma si fajar nee dafa dem ndar ndari lan yow booy génn ci kër bàyyi fi njaboot doo leen tàggu avant ngay dem mu dem te tàggoowul xanaa xamoo ne Mamadou Lamine moom mooy kilifa kër gi ana kilifa ah hi yéen daal yi na ma jaaxal yow Ardo mënu leen bàyyi Mamadou Lamine mii ngeen di ñàkkal fayda est-ce que xam ngeen ni ëllëg li leen di naqari ci Mamadou Lamine lay jóge ndax nag boo moytu Mamadou Lamine dina génn ci kër dina génn ci mbedd mii dajante xale bu ko jox cëram xale bu ko respecter xale bu ko wekk bu boobaa nag baa xam nga ne da koy takk indi ko ci biir kër gi kaawee yow man ngeen di tayal. tey <laughs> bàyyil sa dof doflu gi ngay dof doflu dofoo fan tonlu la li may wax yaa ma ko gën a xam yow waxuma la information kër gi dee mais bu àddina bi sax yaa ko téye. Euh, ay si bëggoon naa xam li ngay wax lan la dimbali ma gaawee ko. def ngeen seeni façon ngawti ngawte ma ni jinjeer xew ji manqué ba sama biir bi tuuru. ah waaw waaw respecté wu leen ko kay. te bu boobaa nag ci yéen lay doon. suñu mësa mettre yàgg sa nday yéen nañu ko teg waaw mbaa du da ngeen a ménégance yi pour mu ma Lamine takk juróom yi indi ko fii si kër gi ah yow laay waxal de ardo man dañ maa yónni sama kuddu jàmm la ràcc xeexuma xuloo nga ko jéppeeg pirigam bi jàmm bu ñu fekk yàq man nangoo ko yàlla te xam ne loolu la yàlla dogal ci man noppee gooleen ngeen defati seeni manigance ba umu woon dafa ëmb ci ëmb ëmb umu woon bi ci ngeen may xamee gis nga ëmb bi du jëm kaw te bu ma la ko waxee rek na ko gëm te du kenn nag ku dul yow. Euh, gis nga Aïssa yow da ngaa réew da ngaa indiscipliné te gis nga façon yi boo ma koy def quel que soit alpha mën naa la cee ñuus du aferu sa morom seen affaire ëmb ak ëmbalante yéen ñii sëy yéen a ko séq sama yoon newu ci na njëkk tey na mujj tey nga may intercepté di ma wax ay affaire biir. yaa ëmb sa ëmb di xool ba mu deñ yow say mbir dafa mel ni yow chinois nga yow sa ëmb kenn amu ci yaakaar mën nga ëmb bañ ne ëmb na mu yàqu yaa bagage chinois yi yéen a yem bu ma woobati xoolal ee eh, dafal nii ñappas xool xam laa la wax merde te gis nga yow kaaw bul ma wax loo de bugguma wax nag mag bu ñàkk fayda nga yow maa tey maa tey nga ma yow tey ba tayaatoo <laughs> du ma la wax ba nar a jot xanaa yow démb seetaanoo live bi yow yaa ngi mel ni dëkk ci dëkk bi yaa ngi fi mel ni dugub bu tuur <laughs> dëkk bi yëpp yow lañuy ñuy waxtaanee. di ngay ñàkk fayda. wuyu yow mi yaay mel ni ñett yu ñaari réer yow yëgoo lu xew da aye woon démb yaa ngi ci bi moo tax. yëgoo yëgoo lu xew loolu jënti. sa oh, yaay ki mu koy defal ci jàmm ak salaam. àgg ci

moom doy na waar di waaye yéen duma leen miimal dara ndax ay tooñkat ngeen waaye bu fekkee ni la demee lan laa tooñ ah man de yaay boo gisee ma ñëw waxtaan ak yow parce que xam naa ma ma lamin bu baax xamul yoon lu ko neex rek la xam te beneen bi mooy damay bañ mu mere ma ci wala mu ma ciy tong lu moo tax ma yoon leeku ndànk ma ne naa ci ñëw waxtaan ak yow man de duma far moom Lamine yow xam nga loolu dangeen def nag lu ngeen jóg xëpp ma ko ne damay far kii damay far man xam ngeen ni buri duma ko far duma far far keneen Mamadou Lamine waxi noppi man ci dëgg laay wax ku nekkul ci dëgg ma tegaat la ci yoon. gis nga de. naka sa wër. koor gi. koor gi. koor hmm, maa koy jàpp. Hmm. mais moom du ma jàpp ndax tàmm naa xiif. Ah. yéen kay lay sonal yéen ñu jógee saabu ci tàggaay bi. yow ci film bi da gisoo ni ma teewee fan yii. non gis nga. non seetlu naa loolu. waaw yaa ngi nga baal ma nag dama la soxla woon. ah bon. naa ne sax borom kër du xam lu xew ci biir këram. mais est-ce que yow yaa ngi say bët xool lu fi am kër gi yëpp. moom nag nekkul ci yoon te bu ñuy fi ànd ci yoon. te yoon sax nag nit di am problème ci néegu sëyam te ñëw di ko wax góoram soo gisee ma def loolu tey parce que lii dafa sensible. Euh, gis nga loo xam Mamadou Lamine xam ko man mi maa la ko gën a xam man mi ndayam Mamadou Lamine yàlla baax rek ba mu njëkkee jiital papaam waaye bu ko jiitalul woon bu demee mat góor chaque jour ñu àtte ci kër gi waaye nag yàlla rafet rek def waaye bu su ñëwee fii dinaa wax ak moom waaw. Mamadou Lamine moom dinaa wax ak moom man Mamadou Lamine jaaxal na ma trop. jërëjëf ko ñeent ak jàmm. Anta gis naa yëpp et puis comprendre naa tout parce que maay borom kër gi mais dafa fekk ni kër dañ koy sol gis nga gouvernement sax dafa am nu muy nu muy doxee te man cuntu mu ci kër gi kenn jàppale wu ma. xam nga yow kaaw rek nga cité. mais sama bàjjen moo raw ñëpp. maa ngi ci doon jéem a waxtaan ak mais moo raw parce que mënul nekk sama bàjjen bokk ak sama bàyyi ndey ak bàyyi ma boole ko yor ci kër gi yamatu ci mu yëkkati doomam may ma ko kon nan la waroon taxawe taxawaay kilifa la waroon dox taxawe mais defu ko bu sañoon tey tey tey ma jël doomam teg ko ci kaw ñim fi fekk. te loolu c'est impossible ndax jabar la comme yeneen jabar yëpp mais mi ngi noonu loo wax tey ñu nit ñi kii la yóbbu say wax mais yàlla baax na. yàlla baax na dina baax waaw. mu ba xam nga dangaa daanu tey dangaa daanu daanu ba xalaw yow mu leen nit nga ah yaay daanu ci lan lan laa defati xamoo li nga def àddoo wax na ma lépp mag mu toll ni yow yor sa ñeenti jabar xamul la diine wax sa néegu sëy tax jàng xam ne diine wax ah yow war a yow salaatu nga dangaa soxla ardo loolu yëfu nit la mun lemi nekkal nit nekkal nit yow xam nga ne weeru koor moos fu ñu salaatoo sa jabar araab na la xam nga loolu dafoo yaay xanaa doon ni sëy jaamu yàlla la waaw kon kay boo soxlaa sa soxna même bu nekkee ci koor sax daf la ko war a jox déedéet lii kool farata la du kooru naafi la koor gii kooru farata danga ko war a jox cëram ba mu mat xanaa xamoo weer wi sax bu ci àddu amoon ay bor di ko fay bu koy fay yow araam na la ah loolu danga ko war a sa bopp bi xam ko hmm. may Ardo may ma damay jàll. dégg li ma yow lan moo tax yow nga nekk nitu seytaane yow yaa raw kàkkatar da ngay changé couleur ne de lumière yow da nga seytaane may ma damay jàll. maa yaay comme kër gi yooyu yi ñëpp nee ngeen da ngeen a cuub bu leen neexee vert bu leen neexee jaune bu la neexee rouge. Mhm. waaw jamono jii nag mbubb boobu laa fas yéene solo ji. ndax boobu sax bala ma koy woo laa tàggu la ah man ko damaa bëgg a woor. ba nga jox ko sa ndigal mu doo ko um waaye kóor farata gi war topp sa bakkan ba defar la loo xamante ne du yoon ah yow ñu tooñ ba pare nga xam ne da medewaat te yow tooñ ba doyal man la nekk nit. waaye loolu tamit lan la la ci ñëw di nettali lii la ñuy waxati. dafa jaaxle. mais say sutura la yaay booy. sutura ba ci lan man ma sa yaay laa di. amul lu ngeen may nëbb man maa ko jur moom yaa am néew fii te xam na sa jikko moo doom wax ma ko pour ma wax ak bu ci sutura jeexee dara desatu fa li nu dund ci sunu biiru néegu say warul génn di ko tasaare. bu jaaxlee kenn raw ko tamit. su jaaxlee dina génn wax ma xam na sa jikko moom lem da ngaa ñemee tongoo ak ay xulo yu sew te moom loolu lay bañ ci seen diggante. te ci weeru koor lañ ne. nu leen ñëwee ma ñëwee noonu ak yéen pour yow li ngay ménégance yëpp xaw ko ak ma ko xam te yow yaay seytaane kër gi. <laughs> waaw eh ah fexe ngeen ba mu biir ngeen yaakaar yëguma ko. yaa de te kaay xamal la leen xool ma fi gis nga fii doom du fi jooyee bu dul sama bas man. Eh waay waaw. <laughs> te su ma la ko waxee war nga ko gëm. te yow damaa bëgg nga moytu ma gis nga boo moytu dinaa la ñuus ba nga day ci kër gi te gis nga sama capable yow sama banditisme foog mu won la ko dinaa la won nan la ak naka la te xoolal samay bët mu ngi ci say bët yow su la def lu muy def dinaa la ko li nga wax tamit nice il faut mu xam ne jigéen sa jëkkër warulaa soxla nga ciy teg baat vraiment boo ko soxlaa automatiquement daf laa war a jox boppam parce que looloo tax ñu boole leen dégg naa lépp te soobee yàlla dina ko dégg li tax nuy jur ku ne voilà kenn xam waaw dëgg la mais yow tamit nag gis nga yow Modou Lamine dangaa ngaa wul boo bëggee nit nag danga koy wax dëgg yow yaa bëgg sëy te aduna sëy rek dajale wuñu fi yow da ngaa mel ni lëg ngay yi ngalañ ngay yi ngalañ ngay yi ngalañ yow ba kañ. waaw nag yow loolu yow yow ñoo ràmbarax ci bërëb. nga xam yow doo nga jóg. waaw déglu ma kaa man kilifa laa bàyyi di taxaw sama digg kër gi di di di yooxu di wax lu la neex yow lu la neex ngay génn sa làmmiñ. waaw mënoo fee doon kilifa ba doon sama kilifa man sa kilifa laa ak ñi nga yilif déggal li ma wax l'essentiel bi mooy ardo argo di dégg tey dinaa wax ak moom bëgg nekkal ci loolu rek amul problème waxal ak mom, hmm. waxal ak moom daal te et puis booy day wax ak moom bu ko déglu ndax xam ko hmm. sama jabar la te xam naa ko bu baax a baax mën na fen mën na créer ay wax hmm. gis nga boo ko le temps ngay wax di ko jox mu lay delloo mën na ci créer lu lu convaincre sax yàlla amul problème dégg nga amul problème yow bu yow duggal ci sujet bi rek direct boo waxee ba pare wan ko ginnaaw dinaa gérer loolu dina ma dégg tey dina ma dégg mais euh, Mamadou Lamine àdduna boo ci nekk il faut être vigilant da nga war a vigilant ci lan xool bu baax sa jabar ji ardu mi li ko may fit lan la parce que am na fit rakkaaju na respecté wul sa yaay ayda respecté wul ay wujjëm man mii di sa ndijaay faalewu ma xoolaat ko bu baax parce que yow dafa mel ni mi la ko may moo la ko gën a soxla te amoo ci seetlu est-ce que caam mi nekkul ci suuf di ngàdd sa jabar ji di ko ay yari yàpp gis nga gis nga nag kaaw yow sa raxas day fëq ndab ndab ah, ah ñàkk fay la bi lay wax nga war a xool doo xool. ubbi loo buntu garage. buntu ba ubbi buntu garage. eh boo ëggee sa ubbi katu garage ñoo ko wuti. loolu ma ko ubbeel de